Macky Sall face à l'histoire kookee daa jëloon ay sos ak i tuuma daal di koy teg ci ndodd ki ñu dippee capitaine Touré. si livre am boobee mu dippee woon Macky Sall face à l'histoire kii di Cheikh Yérim Seck daa waxoon ko ne ci coow li nga xam ne dafa jaaroon ci diggante kii di Adji Sarr ak kii di Ousmane Sonko ne kii di Adji Sarr ginnaaw ba mu ñëwee gendarmerie daal di porter plainte contre kii di Ousmane Sonko ne kii di capitaine Touré. daa jëloon plainte boobee Adji Sarr déposé woon contre Ousmane Sonko daal di koy jox kii di Ousmane Sonko ne ba muy amal li ni mel nag daa photo plainte boobee kii di Adji Sarr amaloon na daal di koy transmettre par WhatsApp kii di Ousmane Sonko. waaye tamit kookee di Cheikh Yérim Seck yemul ci sos boobee waaye sosalaatoon na kii di capitaine Touré ndax waxoon na que ne kookee di capitaine Touré daa waxoon kii di Adji Sarr ngir mu booleel ko ak avoca te ne avocat boobee mu bëggoon a booleel Adji Sarr du kenn ku dul ab jege ñaaleelu kii di Ousmane Sonko. ginnaaw ba kookee di Cheikh Yérim Seck soselee ki ñu dippee capitaine Touré kii di capitaine Touré dafa porté woon plante ngir ñu daal di koy seetal ci mbir moomee ndax li ni mel si kii di capitaine Touré en tant que gendarme mënoon naa affecté wu ci carrière ndax ñooñee honneur ak jub daa nekk li nga xam ne ne seen piliers yi la bokk. coow loolee jaaroon ci diggante kii di Cheikh Yérim Seck ak kii di capitaine Touré nag démb lañ ko daal di soog a ci réew mii di Sénégal si li ni mel nag jëloon nañ ay xeeti daan daal di koy teg ci ndodd kii di Cheikh Yérim Seck ndax kooke daal di nañ koy daan juróom benn weeru kaso yi nga xam ne du ko tëdd waaye tamit daal di nañ koy daan cinq millions ndàmpaay yi nga xam ne ne da ko war a jébbal kii di capitaine Touré ngir daal di koy dàmp ci sos yee mu ko sosaloon ci réew mii di Sénégal ginnaaw procès boobee nag kii di Cheikh Yérim sekk ne day amal liñ dippee appel maanaam day toppandi mbir yi bañ attewaat leen ginnaaw li ni mel kiñ dippee Cheikh Bara Ndiaye di ab chroniqueur yëkkati na ay kàddu daal di xamal Sénégalais yi que ne kii di président Macky Sall moom mooy bandi foncier bu gën a mag ci réew mi di Sénégal maanaam kookee di président Macky sàll moo dàq daal di luubal suuf si nga xam ne ne Sénégalais yëpp ñoom ñoo ko daal di bokk si li kii di Cheikh Bara Ndiaye nee kii di président Macky Sall kër gëm am ca Maroc ay njuuj njaaj la amal ci réew mii di Sénégal ci ay suuf ba daal di koy soog a mën a am foofee ca Maroc kii di seex baara Ndiaye ne ay entreprise marocain de construction dañoo ñëwoon ci réewu Sénégal daal di soxla ab terrain mais si li ni mel nag kii di président Macky Sall dalee naa waroon a jébbal ab terrain bi nga xam ne ne six cent millions de francs la war a jar ci prix normal am waaye ne kookee di président Macky Sall daa jël terrain boobee daal di koy jëbbalee entreprise de construction boobee bàyyoo ko woon Maroc 60 millions de français CFA waaye ne kookee di président Macky Sall lu sababoon mu amaloon li ni mel moom mooy que ne daa waxoon ak entreprise de construction boobee bàyyoo ko woon Maroc ngir ñooñee daal di koy uutal terrain biir marakes bi nga xam ne ne moom mooy capitalu Maroc ba noppi daal di ko fay tabaxal kër ne si li ni mel la kii président Macky Sall daal di amee kër gi nga xam ne ne ci waxtu bu ñuy wax nii foofee la dëkk ca biir Maroc ndax ne kër googee ki ñu dippee Mohamed di mbuuru Maroc joxu ko kii président Macky Sall waaye kookee di président Macky moom moo amal ay njuuj njaajam ba daal di am suuf soosee ca biir Maroc. ginnaaw li mel kii di Aïssata Diop ginnaaw ba waa parti bii di APR ñàkkee bopp réew mi ba tey. kookee daa mel ni dëmm bu jëfru lu sabab lu tax ñu wax li moom mooy que kii di Aïssata Diop Fall ci émission bu muy amal ci seen youtube am bi mu dippee SNTV kookee dafa yëkkati woon ay kàddu daal di xamal sénégalais yi nu mu doon jaamoo ministres yi nga xam ne ne dañoo bokkoon ci régime kii di président Macky Sall ngir ñooñee daal di koy may xaalis si li kii di Aïssata Diop Fall daa joxe woon exemple ministre bi ñu dippee Moustapha Ba mu fi nekkoon ministre de finance et du ci réew mi di Sénégal ci nguuru kii président Macky Sall de deux mille vingt deux à deux mille vingt quatre. kii di Aïssata Diop Fall ne bu bëggoon a contacter kookee di Moustapha Ba daloon xaar ba ministre boobe di Moustapha Ba amaloon ab discours mu daal di jël discours boobe daal di ci amal ay montage ak i dog-dog. ba noppi daal di jël vidéo boobee daal di koy envoyé ministre boobee di Moustapha Ba par WhatsApp ba noppi daal di ko ci envoyé ay autocollant yuy tàccu ne bu amaloon li ni mel rek kii di Moustapha Ba da ko doon oo téléphone directement daal di koy laaj lu sabab mu daal di koy envoyé vidéo boobe kii di Aïssata Diop Fall ne foofee la doon jaar di tagg ki ñu mustapha Ba ndax ci lako don waxe ke ne ba senegal di senegal ba tay ministre des finances bu gën mag buñ am du kenn ku dut kookee waye tamit ne fofé lay jaré dal di wax kiñ dippé mustapha Ba ke ne dafa am ay tolof tolof financière té mom mi di Aïssata Diop Fall défenseur du régime ki président Macky Sall la donc wa gouvernement bi waruñ ko seetaan mu fi ñaaw ne bu attu won ak di mustapha Ba ba nopi bu rakorosee ak mom du yàgg dara kiñ dippee lahaat Sarr nekkoon daasu kookee di Moustapha Ba kookee da ko doon rappelé ñu daal di waxtaan mu daal di koy wax ci difficulté financière yu mu nekk kookee daal di koy envoyé xaalis waaye ne nag ak gouvernement bu bees bi ñëw en place lu leer ba am mooy que ne loolee dootu ko mën a amati ci réew mii di Sénégal ginnaaw li ni mel kii di Abdoulaye Seydou saw di ancien ministre de l'urbanisme ci régime kii président Macky Sall yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale ci tolof-tolof ak lënc-lënc yu jaar ci diggante kii président Macky Sall ak premier ministre am ba woon bii di Amadou Ba si li ni mel kii di Abdoulaye Seydou Sow ne bañ jibee élection présidentielle 2024 yu ñu génn kii di président Macky Sall da ko ool woon daal di koy xamal que ne dafa daal di bëgg a changer candidat bu koy teewal ci élection présidentielle 2024 yu ñu génn waaye tamit kookee di Abdoulaye Seydou Sow nanguwut woon a wax lu sababoon kookee di président Macky sàll jëloon ndogal loolee. mbir moomee nag képp ku ci amal ab ñàngat li nga gis que ne lu ëppul ci sénégalais lu ñu doon wax ci lu sabab kookee di président Macky sàll jëloon ndogal daal di reporter élection yi ci réew mii di Sénégal loolee dëgg la. ndax ñu bëri ci réewu Sénégal dañ doon wax que ne kii di président Macky Sall lu sababoon mu jëloon ndogal daal di reporter élection présidentielle 2024 yi ñu génn moom mooy que daa bëggoon a changer candidat te mu ko dàqoon ba mois de juin li ni mel dina doon may koo président Macky Sall mu daal di tànn keneen ci biir coalition bi ñu dippee Benno Bokk Yaakaar ngir kookee daal di mën a remplacer ki ñu dippee Amadou Ba di ancien premier ministre am ci réew mi di Sénégal.